yéenekaay bii di laas. ayca lii la xëyee mu di machine radiothérapie bi nga xam ne booba léegi ñoo ngi koy waxtaane ñu bëri ci Sénégal nekk ci jafe-jafe ndax ci am feebari cancer ñoom ñoo ko soxla benn bi fi nekkoon pan na ñu ciy wax boobu ba léegi gouvernement bi doon xam ne na dina am. <laughs> ubbil nañ la demal kàcce kon ñu dellu ci laas dañuy xëy xamal ne kon lu aju ci euh, appareil radiothérapie bi nga xamante ji ñoo ngi doon séntu fii ci réewum Sénégal ngir mu yegsi fi fii ak juróom-benn weer yéenekaay bi xëy nañu xamal ne kon kilifay réewum Sénégal ñi ngi waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi war a defar boobule appareil gën koo yàgg léegi fii ñeenti weer lay doon mu mel ne dootu ñëwati weeru août waaye weeru juin kon ca lay dellu siwaat laas moo ñu euh, moom la l'observateur xëy dalal bokk na ci règle déontologie yi mu ne képp ku yëngu ci wàllu justice dañ koy appliquer ci sa kaw loolu it euh, Macky mi mu ne kon am na légitime euh, légitimité nga taxawal kon li nga xamante ne ji moo di euh, politique judiciaire lu aju ci song yi ñu koy song maître Sidiki Kaba bu defuloon dara ci la ko yëf di méttee mais comme li ñu koy waxal yëpp ci ay jéegoom la ak i action loolee kon du ko métti réew mi quotidien xëy ci wàllu justice ak it lim ñu xamal ne kon juge magistrat ci justice bi terewul ñoo ngi ko toogaale noppi waale ko ñu waxtaane wàllu politique ak Sud Quotidien njiital parti sociali euh, parti socialiste di Ousmane Tanor moom la xëyee muy nettali kon euh, ay jaar-jaaram ay mbiram ak yooyee di xam le ne ba mu dee Ousmane Tanor Dieng ba léegi amul ci lenn loo xam ne dana ko def ba pare daw ci res lu mu mësi def moom euh, da koy assumer Tanor ak kàddu yooyu mu wax la quotidien xëyee ko xëyeet Ousmane Tanor Dieng moom ay leçon la ko jàppee ba tey baam ci li mu ne du mës a daw res ci ay waxam lu mu wax rek da koy assumer mi ngi ci yéenekaay bi beneen yéenekaay bu xëy génn feneen moo di la turbine ak assemblée nationale bi nga xam ne douzième législature bi mi ngi ci yoonu jeex ñuy waajal treizième bi yéenekaay bi nañu treizième législature Euh, fitna bari woon ci wàllu politique ci gars yi APR yi ci week-end bi ñu génn laas xëy ñu ko xamal xëy ñu xamal ne kon deret tuuru na fetal jug na loole nag ci gars yi APR yi la fële ca diwaanu Ziguinchor ak fi nga xamante ne ji moo di ca diwaanu Fatick en tout euh, fitna amoon na tiis moo nekk ci Vox Populi lu doy waar yéen kaay bi xëyee ko mu di benn femme boo xamante ne ji kon dafa am jëkkër 31 décembre bi passé ci la marié yéenekaay bi nañu moom femme bi dañ ko fekk ci appartement am ci Sicap mu faatu ñaari fan lañu benn fan lañu teg yëg ne jëkkër ji aussi euh, pendre na boppam faatu lan moo leen metti kenn xamu ko Pape ñu jeexalee ak les échos midi ak ñun ci soir bu doy waar am ca njaarim limaamu lay di benn waay boo xam ne daal famille bi lëmm la faagaagal ñii mu rey leen ña ci des mu rendi leen Pape. ndeysaan Ah, gis nga moi j'aime pas les mauvaises nouvelles merci beaucoup kontaan nañ torop ci yow. kon à samedi QG astafurlah sinon demain. <laughs>